juge d'instruction di bu deuxième cabinet moom moo ginnaaw bi nga xam ne déglu na ki nga xamante ni moo di chroniqueur bi euh, chroniqueur judiciaire bi di euh, Pape Ndiaye nekk foofu ci Walfadjri ñu fàttali Ndiaye mii nag nekk foofu ci Walfadjri li ñu koy toppee nag mooy euh, diffusion di fausse nouvelle maanaam ay joxe information yoo xamante ni wérul waaye tamit xotti war may ñi nga xamante ni ñoo di magistrat yi moom nag dafa waxoon yëkkatoon ay kàddu daal xamante ni moo di présentateur émission bi di Balance euh, euh, moom nag mi ngi yëkkati kàddu yi nag jeudi euh, ci émission bii di matinal foofu ci Walf TV daal di xam leen daal fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoom ñoo sës ci procureur bi yëpp li nga xamante ni sàkkoon nañ ko daal mooy ñu def li nga xamante ni moo di affaire Ousmane Sonko ak Adji bi non lié total waaye siis bi ci boppam moom moo jël dogalu def ko ndax loolu mooy li nga xam ne moom la président digle moom loolu lay def kàddu yooyu mu yëkkati woon nag moo waraloon ñu wooloo ko bi ñu ko wooloo sax moom dañu woon du wax fi mu ko jëlee ndax en tant que journaliste article onze bi nga xamante ni moo ko tënk moo ko mayul muy wax fan la jëlee information boobu. ay mii nag daal dinañ koy jàllale mu nekk fële ca kaso bu si Sébikotane foofu la lañ ko dóor li nga xamante ne moo di maanaam dépôt jamono ji moom Pape Ndiaye ma nga ca kaso bu Sébikotane fële ca Sambour numéro 2. jaa jëf ci ànd beeg NGTV fi leen di abonné wu fii ndax daf jotee xibaar ak jàngat di wér woor jaangeen jaa jëf.